tey ñu gis la nga ñëw fi nga xamante ne màggalu Touba yan kàddu ngay jox ci boppam. waaw kàddu yi may am mooy kàddu mbégte kàddu taalibe parce que man ku ma xam-xam ni taalibe laa Baye Fall la Seera Fall yaakaar gëm ko ginnaaw yàlla ak yonent bi xam nga tey nag ñu ñëw ziare euh, Serigne Mountakha ziare Soxna Bali Mountakha dem ziare sëñ Bass Abdou Khadre ziare sëñ Sidi bu Serigne Abdou Lahad ma ànd nag ak suma xarit le ministre Matar Ba. Euh, ñu gis ne tey dafa am benn problème boo xamante ne dafa am entre cantaakun ñu gis bu yàggoo dara ki nga xamante ne moom mooy su na génn na def benn déclaration yan kàddu rek nga ñu mën a wax ci mbir moomu noonu. waaw mbir moomu leer na xam nga tey jii mun Mountakha mooy xalif général des Mourides bu Serigne Béthio làkkoo Serigne Mountakha moo ko jël dencal ko boppam jël doomam samp ko xanaa kenn du doonu bàyyi jàmbur <laughs> sëñ Saliou Thioune mooy xalifa Cheikh loolu la ñun fi mu doon nii keneen ku am leneen mun da nga am sa leneen bala dara mais man pour man mun Mountakha mii fi nekk doon xalif général des Mourides bi sëriñ Béthio làqoo ñu bëri dañ jàppoon ni janatu salaam lañ ko war a denc mais mun Mountakha mii wax ak sëriñ Touba doon Serigne Touba daf ni Serigne Béthio nañ ko indi dencal ko ko fii ci baax yi mu denc ko ba pare nag daal di samp doomam ñu leen kii muy xalifaam. mais nag loolu yàgg na am ci yoon bi yàgg na am ci yoonu murit sax laa lay wax yëpp jamonoy Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa mu fi door a am na ay seexam yoo xam ne dañoo yaakaaroon ne ñoom mën nañoo nekk xalifa Sëñ Tuubaa waaye Serafal moo ñëw leeral lépp. maanaam tey dafa bëri tendance bëri problème tey ji mag yow la doon xaar ndax di nga dem jannatu wala di nga dem ngaaw. man bu may dem ci sëñ Saliou Thioune laay dem mooy xalifa Serigne Béthio mooy doomam moo ko jur xanaa nag du ma gis bàyyi jàmbur doo ko kenn du ko doon saa yi dañu waxante dëgg xam nga dafa am yoo xam ne gis na nit boo bëggee dof dof boo bëggee nekk nit nekk nit Serigne Saliou Thioune mooy xalifa Cheikh Béthio loolu kay leer na moo jur donc la mooy taam tey ma keneen ku ñëw kay da bëgg xaalis rek wala nga bëgg lu xam léegi nit ñi sénégalais yi ñoo taayal bañ liggéey bëgg xaalis bu yomb ak ceex dafa neex de toog rek gars yi di liggéey seen moo di ñëw di la jox dafa neex mais sëriñ Saliou Thioune mooy Cheikh Béthio man ci man parce que man dama bëgg sëriñ Béthio yàgg ko gëm waaye man suñu kër sam bi ma jur dafa am taaw te yaakaar naa ne sama baay bi mu fi jógee taawam mooy suñu jëriñu kër mooy xalifa bi donc nag nit ki bi fi jógee doomam moo ko war a remplacer amul kenn ku ko mën a remplacer voilà. tey yan kàddu ngay dégg ñi nga xamante ne ñoom ñooy cantaaku ne ñu dal yan problème maanaam tey ji yow boo joxe sa kàddu lan nga leen di wax. dama jàpp ni daal man ñun ñëpp ay taalibe Sëñ Tuubaa ñu ñun ñëpp ay cantaakoon lañ tey ji Serigne Béthio nekk na fi nit ñi gëm ko yaakaar ko ndax Serigne Saliou Mbacke moo ko defar Serigne Sëñ Saliou Mbacke bu fi jegee Serigne Cheikh Saliou lu tax benn soxna Serigne Saliou ñëw woon toog ne moom mooy xalifa <laughs> mais doomam a toog xalifa donc nag sëñ Saliou mi defar Cheikh Béthio bu fi Cheikh Béthio jógee taawam moo war a toog donc peut-être am na ñoo xam ne émotion moo leen jàpp wala dara du ma ne nag ñeneen ñi dem feneen du ñu ay taalibe de du ma wax loolu xam nga affaire fanatique nit ngëm-ngëm dafa dafa metti quoi dafa am ñoo xam ne peut-être dañu attentionné jege woon peut-être affaire yooyu mais bu ko bëgg a dégg dëgg dëggantaan di waxal yàlla kese Serigne Saliou Thioune fu mu toll nii mooy xalifa Cheikh Béthio moom li sëñ taxaa wax kenn mënu ko dindi lu ne ja lu ne lu ne nu ñu koy waxee olof. waaw lu ne fang kenn du ko jeex Serigne Serigne Serigne Serigne Mountakha dafa reconnaître ni Serigne Saliou Thioune mooy xalifa Cheikh Béthio te nag comme tey jii yoonu murit kii ko jiite diriger ko yor ko mooy Serigne Mountakha Mbacké donc ñun fu ñu joxoñ rek foofu lañ mën a xool dëgg la euh, léegi nag ñeneen ñi nga xam ne peut-être dañu nekk ci leneen. dañu jàpp ni kii la mais yaakaar naa ni benn la quoi donc xam naa ni lii ay peut-être xam nga man pour man sax réeroo amul ci cantaakon yi parce que man pour man tendance bi peut-être presse bi ak yenn gars yi ñoo indi fii tendance mais jàpp naa ni ñeneen ñi sax xam nañ ni Serigne Saliou Thioune mooy xalifa Cheikh Béthio loolu ñëpp xam nañ ko dof yeeg bumba yeeg la ñi ñëpp xam nañ ko c'est dafa leer. sama kaaju mujj mooy di gërëm le ministre Matar Matar Ba le fait que muy jóg boole ma ci délégation ànd ak man yóbbu ma ci Serigne mu Moussa Blaat ñu jóge foo dem ci Serigne Bass Abdou Khadre ci kër Serigne Touba gi tey ñu ñëw fii kër Serigne Soxna Bally Mountakha donc moom dama koy gërëm di ko ñaanal di wax nag le président de la république am na ay jëwriñ yu baax mais am na dafa am exception Matar Ba c'est l'exception boo bëggee dégg parce que man duma ànd ak fekk. du ma jay nit du ma wax nit lu ko neex ànduma kenn tamit pour mu may jox dërëm mais dama gis yéene bu mu am ci réew mi yéene bu mu am ci président yéene bi mu am ci jeunesse bi ak ni mu nekk taalibe sëñ Tuubaa moom loolu laa naw ci moom ba fu mu nee ma jógal ma bàyyi sama njaboot ànd ak moom jërëjëf merci